ñi làqatu léegi ci clavier yi di xas mag ñi fi ne loolu mooy thème principal boo xam ne kuy waxtaan war nga di ko wax ndax buñ ci moytuwul fitna bu rëy dina judd Sénégal ay xale yu juddu bërki démb jàng tuuti ci ay téere di raddu mag ñi di naq du mag ñi lu ñu wax ñun du dëkk ñimee wax lu kenn mësta ñimee wax ne ci internet yi làqatu lu leen neex nu wax ko mag ñi ci mag ñoo xam ni ba ñuy bind seen téere yi ci seen yitte booba am téere yombul lii ñuy jàng ñoom mag ñi romb nañ ko ba mi am ay ñaar fukki at ci yanant bi seen yitte ci lislaam ñu def lu nekk ay xale yu ndaw làqatu tey di leen xas ci turu diine am ci ñoo xam ni ay financement lañu am dañu dem ci réewi naar yi jàng tuuti naar yi di leen financé ñuy attaqué mag ñi lu ñaaw lu nekk ñu teg ko ci deru mag ñi ko ci moytuwul yaa ngi ci tooke ku ko ci moytuwul yaa ngi ci tooke te loolu nag président de la république war na cee jël matuwaay Macky sal ndax moom la yàlla dénk réew mi mu jiite réew mi te moom ku ko saaga woon tey balaa ngoon mu lijjanti ku ko saaga woon mag balaa ngoon mën naa yónni ndaw yi ko lijjanti kon nag nun ñi gën a foor ci nun nga xam ni diine bu fi accès ba nga jariñu ci yow mi critiqué mag ñi sa baay bi la dugal ci diine ndax moo la jur sa baay mag ñee ko jox diine diine islaam sa baay judduwul fekk ko fi déedéet judduwul am ko indil ko boppam da ko fee fekk ci ay mag mag ñi taxawal ko ci xeex ak lu nekk daj ko bindi téere dañ dañ ci seen boroom ba sa baay jot ci ñu jur la yow nga jàng ñetti téere yi saaga mag ñi sëriñ Tuubaa noon na ca naan masaalikul jinaan wasiatul miidaani laa yuq fiiha ibaa u namlatin sulukan fiiha sëriñ Tuubaa nee na xorondom wu lànk suba teel ni duma jaar ci ci diggu yoon wi xorondom bu bañ ni duma jaar ci diggu yoon lan lay wàññi ci yaatuwaayu yoon wi du ko wàññi dara yow da ngaa mën a def tiijaan yëpp di ay dof mën ta nekk murit yëpp di ay dof xaadir yëpp di ay dof am na ñu la mag am na ñu la dàq jàng am ñu la gën a am yàlla ñëpp mën nañoo bokk gëm benn mbir ay siècle ñu koy topp nekki dof am na loo xam ne caaxaan rek la yitte ji mag ñi doon def te tey lu nekk ñi nañ ko wax ñi me koo saaga mag ñi réew mi ni pat kenn waxu leen dara boo duggee ci internet bi sa yaram day daw amul ku nu jomba ak lu mu baax baax ñi me nañoo def vidéo léegi ndax léegi réseaux sociaux yi moo ubbeeku ku ñi me woon a wax démb tey ñi naa wax réseaux sociaux yi ubbeeku na ku mu neex nga def vidéo saaga ko la neex yàq ab der loolu nag war nañ ci jël ay matuwaay ndax tubaab dañ ñu raw ci côté yu bari tubaab dañoo jël jumtuwaay ngir liggéey ci développer seen réew ñun dañ koo jël def ko dund def ko règlement de xasanteek xasanteeg saaganteeg ŋàññante ku la neex nga tagg ko la naqari nga xas ko kon nañ ci jug li muy yàqkat moo gën li muy defar ay magum jëmb jeexal seen dund ci yoonu yàlla ba mu gërëm leen ñu wàcc liggéey ba ciy mag mu doy leen su la doyul lii ful la mooy nga maandu ja bañ a mu doy fi ne mënoo fexe ba ñu bàyyi sunu màggal gii saa bu 18 safar ñëwee dañuy ba yi gën a dolli ko ay millions yi dem mënoo ci dara da ngay dee ci xol bu xol bu naqari rek sëñ Seex Gaynde Fatma waxoon na ko nee na yaa xaasidiina imaaman naasi amatuhum muutu bi xaysikumu raxman wa xusraana ñu ne ko lu tax mu ni fa inna qudrata rabbi ratabathu imaman mustaqiman rafian ay sumakaana nee sëñ Tuubaa yéen ñi koy iñaane su yeboo ngeen dal da ngeen di deeg seen mer dong mënu leen ci dara ndax yàlla miy def ci kàttanam ndogalam jiital na sëñ Tuubaa muy imaamu ñépp gën leen a jub xocc def zéro faute sëñ Tuubaa zéro faute la kenn mënta saliir liggéeyam déedéet moom même boo ci bokkee te tegoo ci yoon it yow lay wàññi waaye mënu ko yàqal dara moom sëñ Tuubaa moom zéro faute la doo topp menn mbindam ak loo mën a mën a jàng ba ni fii la defee fët loolu doo ko gis moom benn jàngkat bu topp mbindu sëñ Tuubaa ni fii laa gise erreur doo ko dégg doo gis fenn bañ ni la fii la salité ba yàlla ak dara doo ko dégg fekk fenn fuñ ñu la sëñ Tuubaa moo manqué war ma yanantu bi amul ci mbindam kon léppam zéro faute la sëñ Seex Coro Mbàkke rakkam moo ko wax bam koy woy dani wax wa salimun min al afaati jumlatiha wa ma nifaqan bima imaanihi mazaja za kaxtafa muqtafa xata ka annahuma lawla nubowatu za sawbaani xat nasaja man ata yowman li maskanihi xayril masakini tuuba min dadin xaraja sëñ Cheikh Coro nee na sëriñ tuuba mooy ki topp sunna seenantu bi wàcc ko benn yoon ba dundam mat waxuma sëñ tuuba ah, wax naa ko léegi sëñ Masamba Mbàkke wàccul sunna cerno maam cerno wàccul sunna sëñ Tuubaa ko yar sëñ Mbàkke bu su mës ta wàcc sunna sëñ Tuubaa ko yar sëñ aafe noonu sëñ daaru Assane njaay noonu sëñ Tuubaa doo ci àgg defar na mag ñoo xam wàccuñu sunna maami kee toog sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana amul kenn ku jaam ba toll fi mu tolloon ñii di critiquer kenn tollu ci sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana ci waxu tànk moo leen dàqa jàng moo leen raw imaam la woon te ñooñu sëñ Tuubaa leen doyoon su la doyul kon da ngay ci mbir mi te bàyyi saaga ak tooñ tooñ baaxul sëñ bi daana ko tere daana wax ni moytu leen tooñ ndax kuy tooñ doo mucc tey doo mucc ëllëg te kenn mënulaa laa musal moytu leen di fayu kuy fayu doo noppalu mukk te kenn mënu noppal tooñ gi nag ëpp na liñ ci mën mooy dénoncé ko ndax yenantu bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ni ku ci gisati loo xam ne dafa naqari la neexul sab xol te neexul islaam neexul ñi bëgg lu baax sañ nga koo dénoncé ci sa làmmeñ su fekkee amoo droit defal sa bopp ak dindil sa bopp su dee am nga droit dindi ko sa loxo nag dindi ko loolu président ko mën dindi président ko mën dindi moom bu ko neexoon balaa 24 heures ñu bàyyi saaga yi léegi mu arrêté wala fu ñu mën a nekk mën nañ leen a jëli ji mu jeex kon dindi moom moo ko man ku ko mënta dindi na ko wax ci saw làmmeñ dénoncé ko mooy lii ñuy def ku ko mënul na ko bañ ci sab xol kon loolu faw nu xam ko